département de Mbacké am na suuf am na ndox c'est des forages yu ñu war a gas état ci vision futuriste bu président de la république ci biir programme Sénégal émergent yaa ngi ciy dégg mu ne muy wax transformation structurelle de l'économie nationale cela veut dire quoi mooy koom-koom yi ci dëkk yi wala dëkk bu nekk la fa nekk ci koom-koom nañ ko gën a ful développé ko génne ko pour satisfaire la demande locale mais aussi satisfaire la demande national et même sous-régionale te gis nañu ne Touba rek nag ci Sénégal mooy dajale cinq millions de personnes par année mooy utiliser autant de viande par année kon le marché de la viande Touba la kon nag dañoo war a jege sil produit bi ci wetu marché bi boo xoolee au niveau de Brésil euh, élevage bi wute luñ ko cosaan bien vrai que cosaan da ci dëgër dafa am solo mais nag dañu war a xool fi àddina bi toll lépp looy produire na jege marché ba koy jënd le grand marché c'est Touba donc les produits dafa war jege Touba